waaw du nuyu ñëpp di nuyu waa Pikine. xajal micro bi tuuti. waaw maa ngi nuyu ñëpp di nuyu waa Pikine bu baax a baax a baax waaw di sant nag bis mu ñu bis bis bis bi ñu nekk nii mooy bisu màggalu Kazu rajo mhm. waa ñu siy sant bu baax a baax a baax di ko ñaan yàlla fekk ay at at. ndax mhm. bis bi bis bu tedd la di si siyaare Baye Fall yëpp di sant sëñ Fallou Mbacke bu baax a baax a baax waaw jërëjëf sëñ Fallou jërëjëf sëñ Fallou jërëjëf sëñ Fallou mhm. waaw. Euh, jërëjëf sëñ Fallou jërëjëf sëñ Fallou foofu sax la ñu waroon dugg seen ndax gëm naa ne bés la boo xamante ni bés bu jara màggal la ndax dañoo nekk ci liggéey bi rek waaye heure bi la ñu fekk mbokk yi ñu màggal yi wala ñu ziare comme suñu morom ni ñu koy defee mais nag euh, liggéey bee ñu xaw a tënk ba tax na tey ñu seet si ko bëgg waxtaan ak moom ndax gis nañu avant làmb ji am na ci làmb yu mu jóge woon mu bëri ci combat bu métti boo xamante ni mais yaakaar naa combat boobu defet nga ci jëlee waaw waaw jëlee ci defet ñëw digganteem ak Papa Kane numéro 2 mais démb làmb ji dafa bëri woon coow Mm-hmm. làmb ji amoon na ambiance sa diggante ak Papa Kane mu nekk diggante Pikine yi waaw waaw seen diggante lan la parce que coow lu bari woon na trop. non suñu diggante du suñu ñun sax suñu grand yi la. ajal mi ko baax suñu grand yi la rek la suñu grand yi rek comme ay ñoom njaga ay ñoom njagandoo yi. Mm-hmm. dañ doon ñëw fii Mbaxalu Papa Diop. si lañ ma expliqué boobu ñun ay xale lañ di bëre ñoom Sil Balde sama ñoom ni yaay di dem Thiaroye di fa bëre loolu la woon rek xamante nañ te ñoom ñëpp lañ doon daje tefes. waaw tefes bii nii yaa ma gën a xam ko waa mais mosul ñaaw nag bu jeexee jeex na. loolu kese mais dër bi la quoi. non ku taanu dër bi sax ñun dañ ñun maanaam ñun ñoo nekk koo xam ne ku ñu dajante léegi yow teg dër bi. Mm-hmm. mais ku taanu dër bi sax. lan moo nekk ci yéen. su ñun ñun daal dañuy entraîner loo rek wax dëgg yàlla dañuy entraîner loo waaw ñuy def ñuy entraîner lu metti teg ñu fu ñu war a teg ñu def lu ñu war a def loolu kese la. démb ñu gis ko. ki nga xamante ni muy Reug moo ko andi woon démb. Euh, ngemb ko jàpp na ci combat bu baax a baax nag moom Papa mais ñu gis démb euh, gis nañu ay Jacob bale gis nañu ñoom Malaw Seras gis nañu suñ Papa Zil mais combat bi métti woon abi bi sëf la rek nga ne tey dama ko fiy jëlee lan la. bu ci bari nee nag euh, des fois da ngay yaakaar ne koo dajal yaa ko mën. non man ngëm-ngëm boobu laa am rek man gaw ma daanu. daanu nag bu waree am nag. bu baax daanu nag bu waree am si yàlla lay jugee. waaw mm. ma daanu quoi. daan rek laa gëm ngëm-ngëm boobu laa am kaw ma daanu daan rek laa am ndax li may entraîné si boo damay damaa jàpp ne ku ma taxaw liggantiwu ma nag loo mënta indi. mais gars yi ne nañ doo respecté adversaire. non loolu moom ay wax la rek respecté ma ko démb dañoo bëri si yoon rek dañoo bëri si yoon de waaw. mais bu ñu xool xeex bi commencement bi yow la en zone mais ñu dem ba ci biir ñu gis ne dafa mel ni sa garde bi da nga mujjee fàtte mu lay touché. muy dóor muy daan. non parce que daa am lu ma bëggoon rek dama ko bëggoon ñemeloo sama bopp ndax mën ko teel a songu làmb jeex ñu teel fa jëlee gaa yi. Ah, da bëggoon mu ñeme la. waaw dama bëggoon mu ñeme ndax depuis ba arbitre suuf lee ñemeetuma dama ko bëggoon may confiance ba mu taxaw. wala lan moo ne ci yow ba moom ñemewu la. non xam naa ne ñemewu ma ñemewu ma de. Pape Kane parce que instant bi nga bi nga koy attaqué maa ngi gis yaa ngi koy dóor mais day reculer. waaw ku boo dóor mu daal. waaw non loolu maanaam moom xam na loolu bu baax kooku maanaam tey gii nii ma xamal leen moom mbër la champion la maa ngi koy ñaanal bu baax nag bu amaatee beneen combat bu dul waa Pikine yàlla na ko yàlla may ndam waa loolu rek laa koy ñaanal. mais ñu gis ngeen xeex yow ak moom. mu yóbbu la ardo non ardo dara dem dellusiwaat demaat dellusiwaat. non sama yaram moo tàngawul rek xam nga sa yaram bu tàngee nii bu ñu la mun nañ la laal laal bu ndaw sax sa deret bi di sañee. ok loolu kese la sama yaram moo tàngoon rek. mais moment bi nga jàppee tànk bi. yaa naa jàpp nga tànk bi ñaar yoon. waaw loolu sax bëggoon naa see ñëw. gis nga làmb tey jii dafa metti mhm. mais arbitre yi arbitre làmb war nañ leen xoolaat bu baax. comme naan ñu xoolaat arbitre yi ñu xoolaat làmb làmb dafa metti njëkk naa ko daan démb mu teg fes. moo est-ce bi laal na. xool laal leen sama cameraman bi dina dinañ may appareil combat bi. waa nga xool ngeen xoolaat bu baax a baax a baax a baax njëkk na teg fes bu leer naa ñi mais action bi moo gaaw. kon arbitre yi yow noo mën a. booy bu ndaw boobu moment yow yaa bàyyi wala moom moo bàyyi parce que gis nañ. man moom moom moo jug. moom dafa teg fes ba pare dafa teg fes ba pare dóoraat ki dooraat lii. cuisse bi dóoraat bi. anse bi dafa teg fes du jubaat dóoraat faas di tourné defaat kat appui. chute yooyu yëpp jot na am foofu. chute yooyu yëpp mais moom li ma ci jaaxal moom bi mu jógee dafa doon réclamer arbitre bi comme si yow yaa daanu. waaw noonu la demee dafa ma doon jéem a waaxu. dafa ma doon jéem waaxu rek moom tamit ma jug man tamit réclamer arbitre yëkkati samay loxo loolu kase la. mais moment boobu ñu gis euh, waa Pikine daw dugg ci digg géew bi bàyyul la nga bëre ak conscience tranquille nan la woon. non boobu maanaam. bëre bi nga tegul woon ci yoon wala. non non dañoo yaakaar ni su ma ñëwaatee su ma ñëwaatee mun naa bi ñëw xër moom ñaanu ma ko woon yàlla mais démb xam nga la ma doon démb nan la la ma mënoon daanee may def dara ba juum. waaw parce que xeex bi fekkee entraîné. Mhm. maa ko gën a entraîné. fekkee doole maa ko ëpp. fekkee bëre maa ko dàq fekkee fit. maa ko mais nanguma lool parce que démb kombaa bi xeex ngeen xeex bu metti bëri ngeen xanaa doo ma dégg ma la wax xam nga làmb tey jii ndeysaan am na loo xam ne bu nekkee si yow la nekk na si yow ñun bëre ñun dañ ko fooye mhm. ñooñu laa lay wax nii waa Caaro yi dëgg la seexuma ak ñoom dara jàmm laa leen yéene ñoom oh, ñëpp seex seex nga ak ñoom dara ndax démb jëflante nga ak ñoom waa jë parce que cumukaay la rek ñooñu maanaam ñooñu mbapat mbapat xam na li may wax doon nañ daje fi mbapat ñëpp xamante nañ suñ biir ñun ñëpp xamante mais gaal gi mu ngi foofu ma gaare nag. déet balaa ngaa ñëw ci gaal gi dañuy ñëw ci combat bi noonu parce que combat bi euh, da ngeen bëre lu neex xeex ba man man moom du ma bëgg ñaari mbër lit frappe bu ñu bu ñu nekkee ci diggu géew bi dañuy jëflante ba mu saf-saf. waaw dañoo jëflante jaay combat bi ñu xeex xeex bu metti ma ak moom mu dóor ma noq ma noq yu metti. <laughs> nga fay fay ma fay fay yu metti <laughs> mu noq ma noq yu metti ma fay fay yu metti loolu kese la. waaw man ak moom ñu bëre xeex def lépp waaw magam indi ko nag champion la rëg-rëg champion la mais moom ma xam ne moom nekk ci rëg-rëg lu nekk si rëg nekkul si moom moom loolu na ko jàpp rëg champion moom nag lu bokk lu moog rëg loolu kese la looloo ko nax mais lan moo tax euh, commencement bi yaa indi bi mais bi nga xeexee dem ardo dellu siwaat demaat dellu siwaat bi ñëwee dafa mel ni xeex bi bëggatuloo ci daal nga ne ah, xaama daw ak ma see dara ak ma see bëgg dara ah, boo xoolee man maa ko dóor ñaari kuy dal mu siggi ma soog ko songu de moom deful dara démb bëréewul demul benn kele defu ko fa bëréewul deful dara moom da doon kay moom benn taxawaay rek la fa taxawaay muy rasu bëréewul deful dara nga nga nga xeex ak moom daw jàpp tànk bi boobu moom mooy daanu mbala xool noo def non maanaam jàpp tànk song song day jeexal bëre song kase la song day jeexal bëre man moom bëgg naa bëre ba bàyyi bëre niil du ma ko def ngay daanu wala nga xool noo def xanaa dooma daanu sax gawuma ko bëgg naa bëre ba bàyyi mais bëre bëre yu yàgg yooyu sax bëre bëre yàgg yooyu sax comme ay yenn bëre yàgg yooyu sax man damaa jàppale ne mbër bu ndaw waroo bëree noonu waaw mais nag ñaari mbër bu ñu ku ci nekk waaj say mbokk andi la faaw faaw faaw faaw nga teg sa bakkan nag non faaw nga ñuy teg sa bakkan mais xam nga rek làmb moom naa la xamal leen de làmb moom naa la xamal leen risque parrainage saa si bokk jël sa initiative foog nga jël sa initiative boobu ndax conseil yëpp boo leen bëggee déglu bëgg déglu ma mm, sàmba bëgg ma déglu bëgg a déglu ma demba bëgg déglu ñëpp kon li nga bëgg a def doo ko def mm-hmm. waaw foo ngay demee sa risque bopp fi àdduna moom nit ak si liggéey boo mënti doon moo xam ngay ngay maçon moo xam ngay def leneen ak leneen moo xam ngay def leen faral far day am fu mu toll foo xam ne foog nga jël risque waaw risque moom du fi bañ loolu kase la mais combat métti woon nga am ci ndam te nga jóge woon ci defet ñëw nga amaat ndam maa ngi dégg nga ne sa gaal jégeegul jégeegul caaroy. déggoo maa ko gaaree caaroy laa lay wax nii. takk si kaawul ba mu dëgër keneen ak keneen na yéegaat. caaroy kan nga fa mën a bëreel fi mu toll ñi ma fa mën a bëreel bëri na. comme kan ñi ma fa mën a bëreel ay ñoom Ahmed Dem numéro 2 war nañ mën a bëre. Kulifay moom man ak moom xam naa ne moom du ma jël nanguwul bëre moom naa ko bàyyi ak Jacob Baldé rek. Kulifay Jacob Baldé. waaw mun naa ko bàyyi ak Jacob Baldé rek. <laughs> waaw ndax ñoom ñaar démb moom laalante nañ si stade bi lu neex waaw naa ko bàyyi soxla Balla rek ñoom ñaar. pare nga pour bë pour bëgg Ahmed Deme numéro 2. pare naa pour bëgg Ahmed Deme numéro pare naa bu ñu ma joxoon avance bi léegi léegi ma jël ko. bu dul bu dul bu dul bu dul Ahmed làmb a yóbbu. làmb fa la mooy mën a yóbbu bu laal la ñëw ñu bëre côté boobu daal déggoo ma ne gaal bi fa laa ko gaare yab naa fa ñaar yab naa fa am site raqu site bi moom yéegaat na Papa Kane 2 numéro yéeg na ñaari nit yéeg nañ ci gaal gaal gaa ngi foofu ma gaare. ren dina yéegaat. ñoom daam daam ñu lebal. ñoom waaw daam ñu ñu lebal te dañ koo war a fay. loolu ñu lebal maanaam daam ñu si biir géem la. Hmm. ko li fay ñu lebal te da koy fay. <laughs> gis ngeen mbokk yi Coly daa am ñu lebal te dafa ñu koy fay Coly moom moo ngi fi defe naa ni avance am moo ngi dox di wër ba léegi combat mënugul taxaw. billaahi wallaahi taalaahi ak ak bisu màggal gii. billaay wallaay taalaay coow moo fi bëri wax ji nag moo bari nii rek dëgg la nag dañ koy nangul lenn. Mm-hmm. mooy njëkk a bëri mooy njëkk a yëg coup de grand. mais ko li fay dëyoo boo ko indi nga takkal ñu sër ñu contact nga teg pekkatu tàngal man wala zoxob du si daan kenn ba boo tegoon heure bi ba ngoon jot du si daan kenn. du màcc daal maanaam. du màcc. billaay du màcc kenn dëgg la nag nañ ko nangul moo ñu raw. Colifay 2 moo ñu raw nañ ko nangul loolu mais garab si kaw lay fekkante mais Colifay 2 wóor na alxuraan kani boo ma joxoon avance am maa ko ëpp doole te billaay walaay taala dama koy bàyyi loo Colifay 2 ñemewul kombaam yëpp saa bu jëlee kuu day bàyyi. billaay walaay taala dëggal boppam waaye yow. lu muy xeeñ jiwoo ko ko gëmul lu mu doon di lébu 100 pour cent day daw peloton. daw làqu la daw daw làqu la. <laughs> gëmul yaa ko ñeme wax moo moo ngi lay seetaan. waaw ko gàllankoor. <laughs> Qualifier 2 dama ko lijjanti xanaa doo ma dégg maa ngi lay dégg bu baax a baax. foofu laa lay wax leen de foofu xanaa dégguma ne ñoom ñëpp bëgg naa bëri ñoom mais sans départ rek ñoom ñooy xool. sans ku jël daal na jël nangoo jël nga bëre nangul jël boo jëlul heure bii si kanam tamit boo jëlee dina metti wala ma bàyyi la fi rek loolu kese la. soo amoon kàddu yu mujj lan lay nekk. waaye kàddu yu mujj yi maa ngi sant ñu sama gars yi toog ñii ñëpp ay ñoom Lamine Tambirou. waa Timara Abdou Diouf waa Morgay ñoom Taru waa maa ngi nuyu mafia bi fi toog ñëpp waa di nuyu nag waa ñoom goos droite waa yaa ma gën a xam di jàpp si combat bi yëpp ñoom Xaarim Jaañ waa yaa ma gën a xam maa ngi nuyu mafia bi yëpp yëpp yëpp yëpp ku lim daal dangay juum gaan maa ngi nuyu ñëpp daal waaw di xamal ni nag làmb nag moom wax dëgg yàlla fekkee yàlla dëgg la bëgg làmb du foore hmm. waaw làmb moom ku ci dugg pour bëgg coow wala bëgg siw siiw. làmb du fo. làmb du fo. nan nga yëg ba tax nga wax loolu. damaa xam ne làmb du fo rek. làmb moo nekk làmb làmb moo nekk loo xam ne nii làmb du fo. ci boo amee défaite wala boo amee ndam. boo amee défaite ngay yëg man damaa jàpp ne boo amee ndam si nga gën a mën a defaraat say taxaw sa taxawaay. ndax cinquante bu la saay boo amee ndam ñaata mbër ñu ngi si arène bi ñañ lay gën a teg soog. moo tax ma ne làmb du fo. làmb moom boo bëggee dëgg dëgg mos ngaa bëgg ñu jékku la ci musique. waaw jékku dañ may jékku si musique kay démb sax dañ maa jékku si musique mais boo waree daan rek da ngay daan ah loolu kese la. fan ban ban moment nga sentir dañ laa jékku ci musique. waaye moment yëpp mais duñ la ko wan rek duñ la ko wan ko gën a bëgg bis bi démb dama xaal ba làmb taxawee laa ne ko damaa nëmb Ibamaar te maa la gën a miin Ibamaar. da nga namoon Iba maa te yaa ko gën a miin. maa gën a miin fuuf maa ko gën a fës si làmb ji maa ambiance maa neexal maa defal lépp. mais làmb daal du foo. làmb du foo ba tax na gis nañ ko bi bi bi biñ nee Modou Lo dafa blessé euh, gis nañ réaction yu bari gis nañ ñu ci bari génn nañu wax. lan ngay wax ci combat Ama Baldé Modou Lo ndax wàccaay yi yàgg na te et tamit am na benn mbir mooy woon kii dafa mel ni écurie la écurie bu conkee si loo wax ci moom. ah ñooñu moom wax dëgg yàlla. ah. <laughs> ñooñu moom wax dëgg yàlla moom suivre leen quoi. ah xamuloo ko. xamuma ko wax lan nga lan nga ñuy wax ci loolu. waa Modou loo ñu koy ñaanal yàlla mu wér ci jàmm rek waaw man moom wax dëgg yàlla bugguma moom buy bëreeg Amady jàkkaarloog moom bugguma sax mu am baaraamu tànk bi metti loolu ba est que dina baax ci yéen. bugg nan ñëw ak conscience tranquille am ndax bugguma ama jàpp ko yen ko lu mu ko war yen ñu naan non dafa blessé wala lii da koo dal dama bëgg mu ñëw ak. jàmm ak salaam bañ man li ma jaaxal mooy li ma jaaxal mooy yéen mënu leen topp Modou Lo di ko ñaan sens. bëgg a bëgg ak moom après taxaw ngeen ne Ama yi da koy déranger Modou Lo ñemewu leen fan ngeen teg loolu. Modou Lo bala ngaa xam ne ñemewul Ama. arbitre bi ne soufflé ba ba ba arbitre bi soufflé ba génn seen diggante Modou Lo ñemewul Ama de Modou Lo. mais bu ko ñëwee woon est-ce que tamit. Modou Lo am roi des arènes war a xool ñeneen ñoo bëri. nga ne mi la doon topp kaay ma may la chance yu bëri ba pare. wàll yi chance te ñemewu ko. moom euh, kii. xaaral ma dégg moom dafa blessé ñu ngi koy ñaanal yàlla mu si jàmm rek. ñu ngi koy ñaanal yàlla du wér si jàmm mais xanaa du ma ne Modou Lo bëgguma muy bëreeg Ama di am sax paraam weewu tànk bi metti na ñëw ak conscience tranquille ba arbitre soufflé nga xam ne ku ko mën ak ku koy jéem bokkuñu billaay wax laa wax Ama ak Modou Lo sax bokkuñu qualité boobu noonu noonu sax bokkuñu. kan moo dàq bëre ñoom ñoom. billaay wallaay taalaay bokkuñu xamaa ko dàq bëre mille fois xam nga Sénégal njaay. ak Modou ci lamb lépp xam nga Sénégal njaay lan moo tax mënuñoo xam bëre ay Ama. ndax yenn gaa yi saa bu leen ërtalee tànc leen day dal seen kaw rek ñu bàyyeeku. dañuy gaaw a doyal. dañuy gaaw a doyal sëkk. dañuy chargé wu. mais ama demal nga laaj ña ko seetaan mbapat ak ña ko topp mbapat ak ña ko yàggo seetaan mbapat ama mën na bëre wala ama mënul bëre moom kay moo doon bëre dem ba si biir bëreetut lekk fa di joxe wet ak di joxe ndigg ak boo ñëwee mu def jàpp ay di def mais moom kay moo bëreetut. ama bëreetut. Modou Lo xanaa xamoo yàlla mooy maanaam ndeysaan chaque jour ma wax ko sama interview yàlla mooy teg yàlla maanaam yàlla mooy def rek may Modou Lo Eumeu sax moo ko mën fuuf fuuf non mu parce que mënul bëgg Eumeu Sène daan ko yoon fi mu toll nit ki nit ki di mën nit nit ki di mën nit waaw mais xam nga nit di nga mën nit nit di nga mën nit sax si làmb mu lay daan Eumeu Sène laa la wax leen de Pikine sax laa la wax loolu boo gën a gàttal ragalu ma la may wax mais Pikine sax ñu ko fi dàq bëri bëriwul sa dàq see bëree sa dàqul bëre Pikine. waaw léegi nag bu bu bu Eumeu Sène daa koy bëre Pikine Modou Lo daan ko ñaari yoon Ama bu ñëwee tamit nag est di ni ngeen ko yaakaar dina demee noonu. ah doo ma dégg loolu du problème mais Modou bu bi suuf lee. <laughs> maa ngi reetaan rek. yaa ngi mais billaay wallaay taalaay bu arbitre suuf lee ngeen xam ne Ama Baldé mooy bandi salté arbitre suuf lee nga xam ne Ama Baldé mooy bandi salte dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg bu koy wéyu si biir géew man loolu bu at bi soufflé billaay wala taalaay bu ndelli tàkkee day day day nuuru Modou Lo billaay wala man gëm-gëm bi ngeen am nii ba di ko waxee xam nga tax ñu am ngëm-ngëm xam nga tax ñu am ngëm-ngëm ngëm-ngëm bi xam nga tax ñu am ko déedéet xam tax ñu am ngëm-ngëm bëre bokkut ku waaw yow sañ nga taxaw naan ma. non damay laajte xamuma. sañ nga taxaw baal bañ simmeeku léegi. yéen yaa ngi ni yaa ngi. mais am nga volume volume ak. doole bi liggéeyul volume bi liggéeyul volume. ama doole naturel la liggéey. ama combat bi liggéeyul volume. doole naturel doole force la indi. mun na bëre cent kon li li gars di wax naan bu combat bi yéexee. Modou Lo lay arrangé nangu woo loolu. kan yéex. gars yi nee bu combat bi yéexee Modou Lo ay Modou Lo Ama da koy daan si minute dina def ñaari sorte la libéré ñëw taxaw dëggal boppam booy bi wal ko jéggi góor ñu xoolee leneen. yéen dafa mel ni bëgg ngeen combat ba noppi de. xanaa déggoo ma bu arbitre soufflé dina génn saako yi ñaari yoon soo ko dëggal boppam lu dëggal lu boppam sax dana xaamat taxaw ba arène nationale bi arène nationale bi. pied dans ci yéen de. waxuma la pied dans l'eau arène nationale bi. Oh. ama yéen dafay da koy déranger. arène nationale bi nii xam nga verte bi musul fees. waaw feesagul normal. mbër bu nekk bëri na fi foofu musul fees de mais foofu fees del ama yéen bi tourné moom loolu day bàyyi waay. ñu ko koy ñaanal jàmm rek ba biir ba nañ ko ñaanal jàmm dañ ko pièce nag wax dëgg yàlla dafay bëgg a dugg maa la ko wax nekk xam nga jàpp jën naq ko ba saxal ko os ak mepp ba jàpp ko ba wal ko ba jégg ko ba jatan ko loolu la ko ama def instant bi ama meebam la yor oosam la def def si meeb sànni ko mu lox ko mu xëcc ko. <laughs> man booy wax yii ay réew la parce man Moodu ak li mu def ci làmb yëpp yéen ngeen ñëw ma yaakaar ne Moodu moo leen war a daanal mais boo taxee ne Ama dafa onze Moodu. waaye yow Moodu loolu ci carrière am dafa moytu ay ñoom tafaatin ba sonn yàlla dem xaritoog Malick Niang yoof ak parcelle nu ñu soree dix ba yoof mu dem xaritoog Malick Niang ndax ragaloon ko nga naan ma ay kii. dem xaritoog Malick Niang mu loo ngeen mën a kat mbër ama daan leen ngeen mën a bàyyi pël ama daan mu ngeem Papa Sow ama daan mu ngeem Malick Niang ama Zos. non ñooñu ñoo bokk koñ ak ay Zos ak yooyu. ñoom ñëpp da leen di jàppale maanaam maanaam benn affaire nag naa la ko xamal nag de moom moom dafa yàggoon xam. xanaa xamoon ni nag naa la wax leen de olof njaay wax na ko boo xamee lu lay folli du la neex ak ah, koo xam yàlla day seede moom ama fan lañ bëree woon biir koñam biir diis. mu daan leen jël bu gaaw. daanuñu sax jël bu gaaw mais dañoo waa dafa daan. dafa ah, daan da daan da koo daan jël bu gaaw da daan jël bu gaaw. waaw bu toogee xam ne daa daan ama jël bu gaaw. léegi nag biir diis la daan ama mm-hmm. léegi nag làmb yi ndegam arène bi biir taatu Pikine lañ ko teg dafi ñëw bëri moom biir diis lañ jàpp daan ñu ñu koo fekkee kay ama xam nga ban heure trois heures ama dem trois heures làmb ji commencé xaw ma ban ba guddi booy bi toog fa ba vingt deux heures mu soog a ñëw yàlla day fay àdduna loolu leble lañ lay fay fii la doon bëreeg yenn gaa yi di leen def ay action di defaat ay action di def lu nekk moo tax yàlla da koy wan ne àdduna nii la. mais mën ngeen koo xaar mën naa ñëw fii de. ñëw fan. fii fii fan. fii xanaa fii si gàlle bi fii. Ah, waaw gannaaw gannaaw gannaaw. kay damaa tëju ci nekk wax ak nit. ma tas ak Modou moo xalaat leen loolu yéen tamit. per kay ko wax dem di julli ci xaw na eh, eh, eh, nga may wax ay isaapu yooyu. nga kar na fi ëmmal kar na fi ëmmal seen fii ah, ay détails. na ñëw ñu ngi koy xaar moom ngay xool kay. déggoo ma de na ñëw nee ko kër gaa ngi nii. billaay koñ maa ngi nii mu xalaatul xelam ña ko jege. ña ko jege sax xalaatuñ fee ñëw. gën a daw fuuf gën leen a leen a foroo mu loo daa ñëw fii naan may kii ay gis nga Modou Lo barki Seydina Muhammad cooloo fi nekk nag nag nag de de eh, Modou xam nañ ñam yàpp Modou am ñim yàpp xam nañ leen Modou Lo daa am ñum yab Modou Lo yabul waa Pikine Modou Lo yabul waa Pikine. ñoo kàddu yu tàggatoo. kàddu yu muy mujj daal moom mbër yi ma la limal daal bëgg naa bëre ak ñoom Albouri na ñëw ñu bëre dama ko daan mbapat na ñëw ma mayaa ko revanche. bëri ngeen mbapat yaa ngi moom. daan naa ko mbapat mbapat bés waaye daan naa ko mbapat na ñëw ma jox ko revanche am Albouri daan xam na li muy wax bu baax a baax na ñëw ma may ko revanche matam man nag su may bëreeg moom du fi nekk di comédie ak ay tiktok de làmb ji wax yoru ko làmb ji amul affaire de bandi amul affaire de wax fii dangay ngay entraîner heure di contact dégg daaj mais nekku fi ay question tiktok ak yooyu noonu làmb ji day affaire de tiktok ay affaire de comédien de gis nga làmb ji ku fi entraîner amul doole dañ lay weer gaañ la de dañ lay gaañ de barki yàlla dañ lay gaañ làmb ji mbër bu fi bëgg a nekk jàpp tiktok beeg média bi di wax yaakaar ne yaa ngi koy wax wax wax wax rek la da ngay entraîné lu metti di contact lu metti di daj lu metti mm-hmm. même sax boo dajee lu metti amateur yi defuñu ñu su defet bi defet la bi su defet yéen sax bi su defet boo waree daanu mais na nga simmeeku ñëpp xam nañ kii im na doole. mais bu waree daanu mun ngaa daanu. Mm-hmm. mais làmb ji ku fi bëgg a jàpp ndekk tiktok beeg fee nekk mbëru tiktok beeg fee nekk di comédien di wax. di wej weji billaay wallaay taalaay bu la gars yi ëppee doole bu ñu la jënkee ba dugal la si biir géew bu ñu la tàncee da ngay bàyyi billaay wallaay taalaay mais bisu defet moom bisu defet la loolu kese laa am lu may wax di sant bu baax seen ñaar yéen ñaar seen liggéey bi maa koy rafetlu yàlla na jëm kanam waaw di leen defal jàmm waaw di wax jërëjëf sëñ Fallou jërëjëf sëñ Fallou jërëjëf sëñ Fallou waaw gis ngeen mbokk yi nii lay demee ci wasaare làmb tey ñu seet woon ko bëgg waxtaan ak waxtaanoon bëggoon waxtaan ak moom ci li nga xamante ni ci la jóge gé démb ak li nekk ci kanamam di leen jox dig daje beneen yoon ak yeneen mbër yaa ngeen jëf